bu dee gan nga ci suñu kër gii di Faaida TV bala ngay seetaan vidéo bi ñu ngi sàkku ci yow nga abonné te bul fàtte bés ci cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ci kër gi nga mën cee jot bul fàtte zem tey partager suñuy vidéo ak Faaida TV njariñ kase la leen di jural bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa shafiina wa xabibina muhammadin wa ala alihi wa saxaabati ajmain bokki soppay Faaida TV asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñëwaat nañ ànd ak ci studio du Ramadan comme niñ ko baaxoo defee depuis weer wi teroo ba sunu jonni tey tey war a suñu vingt ñaar fukkeelu guddi ak ñett ba tey rek ñu ngi ci fan yu barkeel yu tedd yi muy fanu itikaaf muy taqoog néegu yàlla fanu laylatul xadr muy fanu wër laylatul xadr démb leeraloon nañu laylatul xadr euh, ngëneel li mu amee bokk na ci ay ngëneelam mooy alquranul karim ci la wàcc inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka inna anzalnaahu fi laylatil qadr lépp di junju alquran ni ci guddi googu la wàcc am particularité yu mu am mooy tanazzalul malaikatu war ruuxu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salaamun hiya xatta malaaka yi ci njiital jibril dañuy xotti li nga xam ni mooy univers bi romb mbooleem planètes yi yi nekk ci univers bi mbooleem galaxie di daw vitesse boo xam ne nii moo ëpp vitesse lumière fuuf gën koo gaaw dëgmal si fan dëgmal li nga xam ne nii mooy planète terre bi yàlla wàcce doomu aadama yi luñ fi wut fas yéenee ànd ak ñoom wàcce leen barke waaye itam indaale bépp mbir boo xam ne nii ba déwén war naa am ci suñu biir ci planète terre ñu indaale ko min kulli am dégg nga muy guddi goo xam ne yàlla nee na salaamun hiya am na mu fassiroon yu ko wax ni hiya salaamun nga xam ni xabar la ju ñu euh, jiital salaamun hiya c'est-à-dire salaamun guddi la goo xam ne moom jàmm kase la xataa matlaayil fajir malaaka yooyu nekkeek ñun noonu ba fajar jot kon guddi la goo xam ni mbokk mi bu la seytaane man mukk teddu di danga ca dundal lenn ca guddi ga rawatina nag bu la yàlla baaxee nga dundal ko ba fajar ba fajar gi xar yonent bi joxe woon na ay màndarga ci li nga xam ne nii mooy euh, laylatul xadr boroom xam-xam yi gën koo détaillé bokk na ci màndarga ya mooy guddi la goo xam ne guddi guy dal la climat bu équilibre lay am mooy du tàng lool waaye du sedd guyu bokk na ci ay màndargaam parfois mën naa def li ñuy wax lay maanaam wàcce tuuti ndox ab taw dina koy màndargaal bokk na ci màndargaam mooy subag laylatul xadr maanaam bu ñu laylatul xadre ba ca fajar ga jant bi du fenkaaleeg ay ceeñeer maanaam du fenkaaleeg tàngoor yu génne ay rayon dafay dafay mel ni lu niis bokk na ci ay màndargaam màndarga yi bari na waaye li am solo rek mooy yàlla nañu yàlla nangul su ko defee saydatuna Aïcha waxoon na ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam digaloon na leen guddi gi bu ñëwee mu ñuy wax ni allahuma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ñaan la gu gàtt donte ñaan yiñ ci joxe bari na lool waaye dafa gudd waaye gi gën a gàtt te bokk ci yonent bi daan def mooy lool allahuma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna yow yàlla ku généreux nga innaka afu yàlla ku ku ku maanaam ku mën a baale nga afuwun karim ku tabe nga tam ku baax nga te tuhibbul afwa bëgg nga baale kon nag fanfan ni baal ma mu dee fanfan naa mu gën a yaatooti rawatina nag koo xam ni boroom kër la bu ma nee def fanfan naa jiital ak njabootam ñu koy def guddik julli la guddik jàng alquran la bokk yi kon ñi nga xam ne nii dañoom ay laaj rawatina laaj yu aju ci mbuurum koor ak lu aju ci korite ngeen def ko rek ci commentaire yi laaj yi fi ñëwoon ci diggante bi actualise yi ñuy def thème yi moo tax mënuñ ko woon a tontu su ko defee ko am laaj bu aju ci mburum koor ak li aju ci koor nga bind ko ci commentaire yi ñi ñuy topp ci YouTube bu dee ñu koy jot ci WhatsApp nañ ñu envoyé ci suñu WhatsApp rek incha allahu taala la andi ay tontu vingt e nuit bi euh, heure xëdd bi mi ngi terminé 5h28 dégg nga 19 vingt deux ci la ñuy ndog lépp heure Touba lay doon bu ko defee dëkk yi nga xam ne ñoo yokk ci heure Touba Dakar 6 minutes lay doon Thiès 4 minutes. su ko defee Fatick Kaolack Ziguinchor ju ba Kaffrine 2 minutes Diourbel 1 minute lay yokk ñi nga xam ñooy jiitu Touba Tamba ak Kédougou 8 minutes la ñuy jiitoo Touba Kolda Matam 5 minutes Louga Saint-Louis 2 minutes su ko defee naafila yi nga xam ne mooy 23e dafay nekk 4 raka bu ci nekk rek boo jàngee Fatiha ba noppi nga teg ca li nga xam mooy suuratu Nasr isa jaa abam jeex juróomi yoon suratul ixlaas tamit juróomi yoon ñu jox leen dig daje ci suñu 24eem nuit incha allahu taala statut du ramadan ñaan yàlla ma ñu fekk ko ak jàmm salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.